waaw ci côté euh, woyofal bu mu wax ma léegi nag lu dama jaaxal foofu dama xamul ne woyofal la ñu nekk wala diisal la ñu nekk ndax tellement que léegi da ngay jënd ma lu ma jaaxal lenn kese la parce que da ngay da ngay da ngay jënd 5000 tey nga am exemple 37 37 énergie nga jëndaat 5000 euh, nga am 30 énergie mais damay damay laaj léegi digganteeg 6 6 énergie boobu wàññeeku boobu. lan moo ba ba pare loolu lan moo koy def ba pare. pare léegi woyofal bi am na ñoo xamante ñi amul kii bu njëkk bi dañuy bugg a dellu saa ndax tellement que dañoo sonn eh, da ngay jënd léegi dix mille wala vingt mille mais même pas une semaine affaire bi jeex boo calculer mois bi ci va bon di nga yàq lu mot presque trente mille quarante mille loolu moom eh, war nañ ci war nañ ci gën a liggéeyawaat ndax euh, courant bi léegi war na yomb quoi ndax léegi normalement dëkk bi war na dépasser fii donc moom su fekkente ne wax na eh, wàññi nañu ko ah man de gis man de kiiwuguma ci. li mu am li ma doon am ba léegi moom lay am parce que ñoom bu ñuy wàññee moo nekk suñu avantage non kon ah, man de gisaguma loolu wax dëgg yàlla moom war na ci war na a liggéeyaat si loolu parce que maanaam yow wàññi ci sa bopp gisaguma sa te am na ñi ma gis ñoo xamante ni ba tey ñi ngi kaas démb rek am na koo xamante ba tey mu ngi kaas waaw mais mais yow da ngay fay fay courant te du woyofal bi mi wax wàññi nga ko yow woyofal bi méttiwul ci yow ah métti na ci ñun kay ah, mais gaa ne wàññi nañ ko ndax yow wàññi bi gis nga ko ah, gisuñ suñu bopp de. Ah. waaw. waaw ah, loolu bu dee am na moom lu nañ ko lool lool lool lool waaye buñ ko defoon bu njëkk moom danañu arrangé lool ndax bàyyi bu affaire bi ak loolu bu Sénégal yi jooytu ko ba pare nga door ko wax amul benn njëriñ. ah mais tàggatoo bu rafet la président bëgg. waaw wax kay day tàggatoo kay kay mu rafet moo tax mu bëgg a wàññi yëpp kay. tàggatoo baax na rafet na ni ñu koy waxee waaye bu njëkkoon daal ci lay gën a rafet. Mhm. waaye bàyyi boobu wañ na la oyofal bi amul benn njëriñ. ah loolu loolu nga gis. amul benn njëriñ kay. ah bu ci wàññi weer wi kay ñaari weer yi kay li ci wàññi. boo bi xaw nañ dee ci diggante bi. déet waay bi laa wala leen war xaw nañ dee. Hmm. affaire bi dafa métti de. 5000 boo ko duggee beneen ko du mot ñaari semaine mu jeex loolu amul benn njëriñ. wallaahi. te boo amoon lay wax nguur gi ngir leen wàññil leen ko tey lan la lan lay doon. ah xanaa jàppale xale yi rek parce que ñun moom ay ndaw lañu dañuy góorgóorlu daal suñu doole waaw. Mhm. di leen suñu bopp moom. waaw vraiment moom ñu ngi ñuy góorgóorlu daal. dégg euh, euh, dëgg dëgg daal dëgg la alxaq huwa alxaq dégg moom dëgg rek la xam nga yoon bu ñu nee yoon ñëpp la fi nekkal mais yoon da ngay xool actuellement kenn ko da ngay gis actuellement prison bi dafa bëri ay détenus dañu waxante dégg dafa bëri ay yi li fa nekk dégg naa mot na ay mille quelques personnes te loolu eh, jaarul yoon ba pare da xool su ne moom nee ne yoon am na ah ñoom de ñoom lañu jox pour ñi atte nit ñi mais moom bu nee yoon am na léegi boo xoolee exemple tey opposition bu defee dara dañ lay jàpp mais pouvoir ku fa nekk bu defee dara mais duñ duñ ko def dara dañuy analyser ko ndax boo nekkee ci pouvoir mun nga wax lu la neex saaga def lu la neex mais kenn du la def dara dara du la topp mais boo nekkee ci opposition pour nga wax sax mais dañ lay toppee boor mais loolu kon c'est dit la vérité yoon moom bu yoon bu jaaree yoon rek dañ koy xam ki ñuy def dara mooy indi xaalis jox nangam nit soit gendarme wala nangam nit pour mu plaider ñële pour mu génn te fekke moom moo def kii bi kon yoon amu dama gis ne xaalis boo amee xaalis daal mu nga def la neex wala nga nekk ci pouvoir bi mu nga def la neex kon daal yoon bi daal mais yoon daal la fi nekkal ñaamu daal la fi nekkal la fi nekkal nee nañ daal pauvre daal pauvre daal maanaam coono di koo topp quoi moom dañu <laughs> déet waaye pauvre moom coono da koo topp ya waaye lii moom metti na torop torop torop da ngay xëy suba léegi wax sax wax wax sax doo ko mën wax sax doo ko mën mais xam nga lii lii tam béy na waaw waroon nañ mën a Sénégal moom na dépassé fii nañu wax ne dëgg rek. mën na dépassé fii. tey bu ñu xëyee ba tey naan kii moom kii eh, jàpp nañ kii ñun trois ans ngi nii la ngay dégg jàpp nañ kii tëj nañ kii génn kii. mais nag ñun tamit nag asa jàppoon tamit dañoo def dara tamit moo tax ñu jàpp leen tamit. gis nga loolu genre yooyu mooy dem ba ko mën a liggéeyee parce que day perturber dëkk bi dem na ba ba léegi boo xoolee marchandise yi cher bagage yi cher talatuñ ko xam nga la moo tax imagine léegi carton ton pain ton bu daan jar 17000 actuellement mu ngi combien 37000 est ce di dégg gars yi di yokk diwlin bi di yokk c'est n'importe quoi man dama leen wax sama digg rek après lu ci des nag yàllaa xam mhm. ndax li ngeen li ngeen ma intervenir sax yàllaa xam yéen yéen ñu waaw <laughs> lan la ci nekk mu ngi noonu xam rek gis nga mu oon noonu nag gis nga non non même à parler en fait évidemment c'est vrai justice moom bu gënoon tegu ci yoon dinañu arrangé. <laughs> bu gënoon tegu ci yoon tegu na ci yoon. des na <laughs> ah? des na de. Ah, loo nga gis. yàlla xam na des na. billaahi ci ci ban anam nga ñu ko mën a misaale. des bi ci ban anam moom dafa dee waar trop. waaw beneen boo néewee doole moom dañ lay dañ lay néewal doole ci lépp dañ dañ dañ dañ lay tooñ sax ëpp la doole def la lu la warul def te loolu amul benn njëriñ Sénégal boo juddoo ci réew mi dëkk ci réew mi moom. dañ laa war a jox comme citoyen boo xam ne ci réew mi la nekk waaw ñu la ñu jox la ak ak yelleefam yépp mais ñu jeexal wax ci nag euh, wàllum politique gis nañ benn euh, député yi tamit Idrissa euh, Balde ne bokk ci coalition benn bokk yaakaar nee na Amadou Ba mu neex naxari de gré ou de force day doon candidat day gagné te Ousmane Sonko du bokk man dama yaakaar ne dañoo ragal ah, kuñ ragal ak lu ñuy ragal ñoom dañoo ragal ku ñu ragal ak lu ñu ragal. non ñoom dañoo ragal Ousmane Sonko. ah waaw parce que xam nga yow boo nekkee rek saa yi booy wax rek nga ne mu neex mu naqari Sonko du bokk. kooku bëgg-bëggam la wax bëgg-bëggam. walaay day wax lu ko. Ah, waaye euh, député yow nga war fa tawal askan bi. déggoo li ma la wax de kooku bëgg-bëggam la wax am na ci droit waaye luy xew suba yàlla rek a xam. bilaay wala. donc est-ce que moom en tant que député moom. moom moom taxawal fa askan bi est-ce que moom am na. warul sax wax loolu warul wax loolu du droit am moom xam la dafa war a nekkee lijjanti problème sénégalais yi lan la mais waru fa nekkee diw war na nekk candidat diw day gañ force loolu moom yoonam yo yoonam nekku si te te même bu fekkente ne sax diw moom sax moo ko teg foofu noonu ci ci coalition la nekk amul sañ-sañ amul sañ-sañ wax loolu nit ki dangay ñëw nga def débat li ngeen war a débat man dama gis nga mooy li ma wax rek li ñu war a wax ci ensemble bi duñ ko wax tey jii bu doon réew normal lañu nekk ensemble boobu dañ ko war a parce que amul benn njëriñ gars duñ sax ci internet bi rek la gars yi di yam di gis affaire yi mais gars yi duñu normalement ensemble bu ñuy wax population bi dafa war a teg bët di xool di analyser ngir lan ngir xam parce que problème réew mi la ñuy wax problème ressource bi la ñuy wax yokkute bi la ñuy wax fan mu am problème kan ak kan a def nii mais déedéet doo fa nekk naan diw day bokk ba pare damay gagné force loolu ñàkk a wóor sa bopp la sax. léegi Sonko mu bokk nag moom fan la ko teg. waaw ah, Sonko day bokk bu soobee yàlla loolu kenn warantoo ko day bokk de. billaahi. ah 2024 ah, maam. président Ousmane Sonko rek incha allah. day bokk day day day day yàlla yàlla dogal na loolu ba pare billaahi dañuy ya dañuy lu ci des daal di ñun ñoo ciy góorgóorlu daal. waaw buñ góorgóorlu yàlla dimbali ñu daal. Euh, nguur c'est vrai que yàlla koy joxe. mais nguur am na ñaari façon bu mu koy joxee dama bañ na dugg ci côté diine bi noonu la. Ah, nga non non non non non parce que nguur am na ñaar gars yi dañuy cité lu bëri qul allahumma maalikal mulki boobu. tuuti mulka man tasaaw wa tanziul mulka min man tasaaw boobu maa yàlla mooy joxe nguur mooy nangu nguur. waaye bu leen fàtte ne am na nguur boo xamante mun nga ko am te yàlla dina la boole koo xamante kenn xamul kan la mooy tabaraka lazi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir sama góor gu baax sax di ko doon wax noonu di ko tafsiré bu tafsir bu am solo si li xam ne mu sa man li ma gis foo gis élection yow fan nga gisee élection boo xamante avant ñuy dem élection xam nga mooy gagné Afrique nga ko gis hmm. Afrique ngay gis avant ñuy dem élection ñu ne diw gagné na mais Europe amul ci tubaab amul États-Unis loolu kon yow daal nekk nii commencé jiixi jaaxal tey ñu commencé tey mais boo xoolee xam ne yow fan la ñuy jëm fan la kon daal sénégalais ñoom daal dañuy dugg ci dañoo comprendre sax comprendre wuñu gis nga état lu mu bëgg a def da koy def lu mu bëgg a def état machine machine de guerre la bu takkee rek c'est fini moo too ko arrêté dañoo bëgg nguur tellement que roi ñoom roi la ñoom roi lañ jàppee seen bopp roi yow te alors loolu di yoon dañoo te dëgg fii dañoo war a bàyyi kenn ku nekk fekkente ne amul la tere nga présenté ñu bàyyi la nga présenté loolu mooy yoon bi waaye mënuñu fi nekk di galgan di galgan nit ñi ñu ngi bëgg a dee ay bagages yi cher c'est la vérité am na yoo xamante caaxaan la dëkk bi war a dépassé fii. léegi lan mooy sa xalaat fu ne li ma xalaat fu mu ne nii kenn ku ne ñu delloo ko akkam kenn ku ne ñu delloo ko akkam ndax tey boo xoolee man li ma gisagum même parrainage bi ñuy wax nii man leen di bële laa gis nit di romb fii daal di parrainé. wala Asim caaxaaruma. ah déedéet waaye yow gars yi commencé pare ne bu buy oh, léegi ni ñuy oh, pare ne li fi nekk ci ay candidat ma ne la sama waaye man pare man pare naa fii ci Brioche Dorée bi ñu may ma hamburger <laughs> Brioche Dorée may ma hamburger <laughs> kookal la kookal la ñu may ma hamburger ci Brioche Dorée bi te pourtant da ngay kookal la kookal la kookal la ah xam nga ko 111 bi <laughs> du ma ko tudd 111 bi te su ma pare nee pare su ma pare nee pare dañ may bëgg a jox dara may leen déedéet parce que man bon fonctionné wu ma noonu.